mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee yaay mbër fooy fanaan Siteu jël na ndam le ayé iya o Siteu jël na ndam am na doole xale la xale am na doole ayé iya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 waaye mbokk yi foofu la ñuy rek nuyu ñëpp koo xamante yaa ngi seetaan fi nga xamante ni mooy Kewel Info di leen jaajëfal di leen wax ne nag di leen bës kolos di abonné defe naa ne saa euh, mooy Fass ak ki nga mooy Modou Anta 2 ñoom ñaar nañu bëre combat bu métti bëre nañu ba mi-temps dellu siwaat neex loo xamante keroog defe naa ne bi coow nga amee ñu ci bëri defoon nañu combat bi jeex na mais Siteu bëre na ki nga xamante ni nii mooy Modou Anta bëre bu rëy ba yàlla dogal mu am ci ndam ma fàttali leen ko mbokk yi mu ngi ci huit combats six victoires ak deux défaites ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doo ko wéyal waxtaan wi Siteu nuyu naa la. waaw ñu ngi lay fay di wax bisimilah bisimilah ne wala yàlla di wax ne jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba ngaa ci gàllam Baye Galas si ndiidi mu yàgg loolu te wér Mbacke Balla sëñ Galas Mbacke sama sëriñ sama la bu ñu jógee si loolu nañ sant yàlla julli seen bi sant suñu ñaari waajur yàlla ñaanal yàlla fu ñu tëdd yàlla yàlla yërëm leen xaral na àjjana xam nga jógee di sant sama waa gox waa Fass Gueule Tapée Médina Colobane Grand Dakar baa ñu fenn ñu ngi nuyu ñëpp xam nga di santaan ñëpp nuyu ko ci mel ni Baye Fall di leen dalal jàmm waaw leen dalal jàmm bu baax di nuyuwaat mafia bu baax a baax a baax waaw. Siteu kañ la dugg ci làmb defe naa ne nag bi nga duggee ci làmb léegi yàggul mais pour ñu xamul Siteu Siteu kañ dugg ci làmb. waaw mooy dugg ci làmb maanaam ay 2019 yooyu waaw su ma juumul waaw. nga def six huit combats waaw. Euh, bi nga ci jógee defe naa ne sa combat yow ak ki nga xamante ni nii mooy mooy Modou Anta di combat bi coow li bàyyi woon na la moo woo nga dugg ci Modou Anta ndax Modou Anta nag bu ko gisee fi mu toon defe naa ne bi mooy première défaite am mu teg la nekk ci ci nga nangu koo jël lan moo dugg ci Modou Anta. ah waaw mooy lu ma waxoon bu ñuy signaler laay waxaat rek gëm lu may liggéey xam li nekk si man xam li ma capable moo tax ma jël Modou Anta sama manager sax bëgguloon ma jël ko. ñu ci bëri ah, waaw ñu ci bëri ko woon mais man xam naa li si man xam naa ma capable mais li may wax chaque jour rek gëw ma ni sama moromu góor ba may taxawal si làmb ma tolloo yow man Siteu nga mën maa ëpp doole man gëw loolu gëm ni mun naa ko daan su ma ko jëlee moo tax moo ma dugal si combat bi mais du mhm. mais mais jël ngay jël avance manager bi la war a dem jëlee avance bi ak ñi nga àndal bañ nga jël combat bi nga jël combat bi moment bi nga jëlee combat bi euh, lan nga yëg ak lan moo la poussé parce que defe naa nag yéen dina diis ndax képp ku ànd ak yow bañ nga nangoo jël combat bi combat bi diisul woon ci yow. non diisul woon si man. parce que man sa com bu dul combat ak ma waroon combat damay yow géej xam nga comme tey jii du ma nekk di entraîné nag di am sama benn morom bu may bàyyi xel si làmb billahi diisul si man waaw mun naa mën a diis nag ci gars yi mooy àndal yenn gars yi affaire yooyu ñu si bëri mooy loolu ba ba ñu simee ko tamit ñu si bëri tiit nañu affaire yooyu mais man gëm naa li nekk si man xam naa li may entraîné billahi wallahi mën nga maa ëpp masse nag mais pour nga bopp ma doole ñu jàkkaarloo du bi ñaata séance nga trois séances laa doon def par jour. trois séances ba dama yeewu quatre heures du matin dem géej su ko jógee neuf heures ma dem saal cinq heures ma dem contact yenn jours yi ma dem continuer di yenn saako di yéeg di wàcc xam nga combat bi samedi ak dimanche sax entraîné naa ko mosuma ko def sama àdduna samedi ak dimanche dama ko daan entraîné yeewu ko dem géej. kon combat bi am na foo ko tegoon. am na fu ma ko tegoon ndax xam naa fu mu mënoon yóbbu si làmb te damaa jóge am lu si ma jógoon nit mbooloo mooy ma lu ne lu ma jaralu woon wallaahi Modou Anta nekk koo xamante ni xale la boo xamante ni nii mën na bëri bu gi bu jugee waa Guédiawaye gépp topp ci topp ci ginnaawam maa ngi nuyu ki nga xamante ni mooy turandoo muy Modou Anta sans frontière gis na ni koy taxawoo di ko wax ne làmb noonu la. parce que nit bu jëlee boppam tuddee la defe naa ne desaltu la dara gis nañ taxawaay bi mu am ci moom gis nañ ni mu koy jàppale di ko ñaanal rek yenn combat yi nga xamante ni ci la jëm yàlla defal ko ci jàmm daal loolu lañ koy ñaanal bu baax baax di encouragé Modou Anta sans frontière di ko wax ne làmb noonu la na gën a jàppaat rek ndax xam ne Modou Anta ndaanaan la te làmba ngi ci kanamam mais ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen dugg si digg géew bi coow lu bàyyi woon ci biir géew bi lan la woon. Ah, waaw làmba moom moo baaxoo noonu quoi. waaw ah, kon nag ngeen ngeen ngeen ngeen yàgg ci digg géew bi mystique mel ni ku bëgg grand combat. dëgg la xam nga tamit dem bay yi sëgg courant coupé yooyu yëpp ci la quoi mais gamba bi moo toll woon <laughs> non kii stade bi la yooyu quoi xam nga mais tamit làmb ak dem naa ba wax Modou Anta si journaliste bi xam ne sax après maa ngi ko doon mais seen diggante yow ak moom lan la parce que gis nañ dem ngeen ba ci biir yow ak moom ngeen am yu ngeen jëflante lan xam nga rek pression lamb moo tolloon foofu quoi pression lamb am na itam tuddee la boobu dafa fort quoi moom noonu la mënoon taxawee tam comprendre naa ko. xam nga mais maa ngi koy jégaluwaat bu baax a baax a baax maa ngi koy wax mu jégal ma bu baax di jégaluwaat ak lu lamb yëpp tamit xam nga tamit euh, turandoo dafa fort rek loolu kese la quoi comprendre naa ko bu baax a baax waaw ndax ba ma jógee si Boy Diop ñi ma ma njëkk na si di la mu yombul quoi dëgg mais maa ngi koy jégaluwaat bu baax a baax di encouragé Anta tamit xam nga wax ni xale la quoi làmb mu ngi si kanamam xam xale la am na doole macha allah mën na bëri xam nga mu dem defar waar rek nekkaat si entraînement yi loolu kese la. bi ngeen duggee ci digg géew bi ngeen lewaatoo dañoo jékki-jékki gis Modou Anta yeggal fa sooy mu ñëw mu ñëw xam naa ne yàgg-yàgg da mooy songu si mais entraîné naa ko man dama naan yéenu saaku saaku suuf ma koy sol mu fees dellu di yëg si di di wàcc wallahi azim barke Serigne Fallou Mbacke moo tax bu ma yeggee foofu maanaam defuma dara quoi damaa bëri aisément. defuma bi mu la àggee foofu kon tiituloo. billaahi tiituma damaa bëri aisément boo xoolee maako ko maa bu ma suyee génn dama daw rasu imposé ko dugal sama loxo génnee loxom loolu kese la. mais mais dañoo gis si biir bëre bi lépp da nga jël bëre bi bàyyee ko. waaw si non ma ko ko man maa bëri bëre bi bàyyiwoo ma ko bëre bi de. non yaa daan bëre bi yaa daan daan bi mais bu ñu xoolee clé yi ci ëpp moo ko tànte. non non yow kon seetaanoo ko làmb ji. non maa ngi woon stade waaye léegi wax ma kon combat bi nu mu demee. combat bi dañuy siffler. mu mu dox goos dem góos ma dem góos topp ko ma koy tooñ mu daw wàcce jël ma ma rasu. génnee loxoom dugal ko jàpp si ngeem li rotation ak faxu ko faxaat ko daw di ko bëtt cabaxal ko mu mu tegi xam nga action sur action laa moom ñu def ni bëre sëgg mu daw di ma di daw di ma takk takkam yooyu ma ma rasu génn fii ba suba loolu du ma ko def ma rasu génn ñu mitaa ñëwaat bu ñu mitaa lu tax mu jël avertissement ka moo dox si kawam maa dox si kawam ñu jox ko avertissement xam ma la mu ñëw dóor gauche droit ma daw songo ko jàpp ba ma ko jàppee jàpp si seq ngeen géma yu si ginnaaw jàpp si biir tante action si ginnaaw tegal ko siis mu bañ man maa bëri bëri bi a la mais maa bëri daan daan bi mais ñu gis moment bi nga moment bi chute booy am foofu da fa yàgg lool da nga sonn noonu wala sonn <laughs> booy sonn cent minutes bu ñu bëggoon dañ koy tenir barki Seydina Mohamed man combat mu desee ay trois semaines entraînement entraînement def géej laay dem teg samay buréel di physique affaire jour kese laa doon def ant def ma affaire mbër kontagu ma defu dara physique rek laa doon def 100 minutes bu nga ko doon bëri barki Serigne Fallou Mbacke leer laa lay wax ndax pare naa lépp wër na yàlla. xale la quoi noonu la fa demee. mais ñu bëre ngeen nga daan ko moment bi nga koy daan nag defe naa ni boobu jeexal boobu xaw ma jeexal na xaw ma boog moment bu bëri ngeen bëri ngeen lu neex mais nga daan ko amateurs yi ñëpp tàccu. waaw ah, dëgg la ama maanaam nu ko tubaab di waxee sax. plus le combat est dur plus la victoire est belle ah. noonu la nga waxee. waaw noonu la fa demee nag voilà tubaab bee ko wax loolu la nag quoi moo tax gaa yi ab tàccu xam nga ñu bëri lu neex nag muy xale mooy xale combat bi noonu la mënoon demee parce que ñaari xale yu tolloo doole moom bu ñu bëri moom du ñu mayante dara mayu dara mayu ko dara lu daan naa ko nag mais nekkul ne maa ko mën ku yàlla dimbali ko fi ne yàlla. ban erreur la def ban erreur def ba nga daan ko. moom maanaam luñ ko yeb luñ ko def si bopp bi dafa amul dañ ko gëmloo ne yaa ko moom loolu lañ waaw loolu lañ ko gëmloo mais bu ñu dalantee runkum xam ne lu mu foogoon amul am na doole. am na doole xale la allah am na doole am na kàttan de si yaakaar amul doole ba nga jël ko dal liggéeyoo <laughs> yaa ngi doole de mais fu mu doon dajal kàkk la doon dajal lu woo Congo kàkk bi <laughs> lu gën a laa lay wax. mais dama ñu ne Siteu bu bu jàppee rek mu jóg lan moo tax nga jàpp te jógul sa diggante woo. dafa am si lu ma jógee. combat bi moo tax bëgguma forcer yenn action yi xam nga. da nga doon bañ a juum. waaw bëgguma juum ndax dal na ma sama diggante ak Boy Diop ma juum ñàkk combat bi loolu daal ma bañ ma dalal ma si combat bi man wax naa ma lu laa lay wax bëreegu ma. bëreeguloo kañ nga bëgg a kan nga jàpp ne buñ la ko joxee li nga bëgg a wane ci bëri di nga ko wane moom. ndax dama yës booy rek samay bëri nañ fi ndax defuñu fi lu ma deful huit combat la am six victoire deux défaite ëpp ñu ma victoire ëpp ñu may combat. xam nga nañu bàyyi moytonte bi ñu ñëw ñu bëri booy nag du ma si kenn man sama staff kuñ ma wax kii ngay bëreel kooku laay bëreel aw ma ku ma si bàyyi xel ci booy mais tey xam nga bu avance bi du woon ñu woo tur ko laaj da nga ne kii suñ ma ko joxoon maa ngi moom ko daax waaw loolu mbër bu nekk la ku nekk di nga am rêve maanaam bëri kenn loolu ñaakul si mbëri day am da nga ragal tudd seen tur fi mu toll nii billaay su ma nee ragal kenn yàlla naa bàyyil bëri bañ a sonal samay <laughs> walaay mais kuñ ma si jox du ma ragal. Ah, damaa bëgg mu wax mais nangu taw. ñun doomu Fass dictionnaire suñu suñu dictionnaire suñu dictionnaire quoi ragal bokku ci ñun boo toogee boo waxee turam ba pare am la nga ciy teg ah dëgër fit kii bu daanoo dëgër fit moo ko daan. billaa walaay bu daanoo dëgër fit moo ko daan du ñu tëkku kenn du ñu laaj kenn kii xale la moo mën moo ëpp doole. billaa walaay watalaay ragaluñ fuñ de. day dem. caatu fora yaa ma jaxal sans presse da ngeen mën loolu dara open presse ngeen mën jël leen booy bi ngeen bëri ak moom. bi di wax lu la neex. jëlal kii ngay daw laaxu di wëndeelu deux défaite nga tegle kaay nga jël booy bi bëree baaba jaxal. ñu ngi lay laajte kaay bëree. xam naa ne xam naa ne ñàkkul xam naa ne ñàkkul gannaaw nangu loo ko wax yaa leen ko dee sa diggante ak caatu fora ku la andi woon avance caatu fora di nga bëri ak ah <laughs> booy man waaw bañ a jël. non waxal parce que booy booy xam naa ne yaa leen ko déy comme que nangu woo koo wax yaa leen ko déy mais ku la andi woon en chat fa kooku soxlawu ma ko sax soxlawu ma ko yàlla xam na ko. xam nga nag mbëy des fois dañuy am benn ndam rek fuuy. ko leen andi ñu ne du ma bëgg ak diw ah waaw non dama nang waaw mais si te maanaam avance ci Arru Fora billaa ñu xam avance kan lañ kii xam lu mu wax rek looloo am kii nee na moom ku nekk am na rêve kii rêve xam kan lay bëreel ah turandoom bu yées turam day laal Balla Gaye wala Modou Lo kii loolu la war a bëree kii daa war a bëree ak Modou Lo. combat royal xaw ma xaw ma xaw ma xaw ma si taa koy def xaw ma xaw ma xaw ma fan si koy def ba tey lépp benn la léegi nu ñuy ñëw nu ñuy ñëw ci adversaire yi sa diggante ak Thiat Foire. la ma la boo ñëw xër di wax rek mais man aw ma leen lu ma leen dee ah du ma toog di wax ay si laa war a bëri kii laa war a bëri rek xam nga xam lu nekk seen mbër lu nekk seen mbër tamit quoi am nañ ci plein droit mais man dama am échapé du laaj benn boy du ma laaj kenn moom ku ñu ma wax kii ngay bëreel kii laay bëreel wallaahi bu ñu jëlee woon avance ne ma kii la kii la man entraînement laay am def rek ñëw tëdd ne law loolu kese def waaw. bi moment bi combat bi jàll na. da ngay da ngay da ngay noppalu ci entraînement yi. Oh, man lundi ma tegaat ko si nga ma nii. lundi sooy na ko ba samedi ba ba ah, ci koor dañuy dugg ci koor ah, ñu joxe suukaru koor lundi ñu tegaat si entraînement kenn du ma ko wax man kenn du ma ko wax man sama rabee bopp maa koy réglé amul ku ma yee na ma amul sama rabee maa ko yëgal quatre heures du matin jug dem géej. lamb métti na ci mbër ndaw. trop trop métti lañ siy dund loo xam ne mënuñ ko sa wax. combat bi am nga ci jàppale. combat bi ah, am na ñoom si jàppale ku ci mel ni Thierno Ndiaye Mariane Alice xam nga Daouda sek prési Pagé yi la DG xam nga ku ci mel ni anti sama grand xam nga. anti moom daa daw. sama grand dawul kooku kooku jàmbaar dawul daa gaynde la de. jàmbaar dawul xam ni gaynde la de mel ni ndate. ndate bii baax xam nga ay aadama seex ñoom ñëpp jàppale nañ ma quoi jàppal nañ ma xam nga jàppal nañ ma bu baax a baax ñaaña ñaaña sama jigéen autorité yi nag kenn jàppalewuñu waaw duñ leen fi teg ñu naan ay yeewu askan bi duñu gën a yeew waaye yow askan bi ñoo fi ne di ñu gën a yeew jàppale ñu fi benn booy maag plateau yëpp ñu si kenn palaato ay supporters samay kaar lañ yéeg te loolu du yoon dañu war a jàppale ñu ay jeunes lañ fii lañ dëkk Fass xoolal suñu koñ ñu mel fii bu tayee fii maanaam fii taa lay def doo am foo jaar koñ bi ñu dañuy ngàcc ba sonn nañ ñu jàppale ñu nañ ñu jàppale ñu ndax ñun dañu dañu ñëw fii wax nañu lu ñuy wax joxe seen kàddu ba gars yi fal leen mais gesuñu benn booy fii xam nga gesuñu fi kenn fii mbër maanaam fii mbëri kenn mënul dara fii ku fi dem rek dañ laa jàppale kon nañ ñu gestu quoi ñu jàppale ñu Boy Prado bu bëree mu ngi ne dafa métti si moom barki alxuraan dafa métti si moom ñun ñëpp si la dafa métti si ñun quoi mbër mu ndaw dafa métti barki Seydina Mohamed yow maanaam combat da nga ciy da nga koy jël war si nga ciy perdre xam nga daa métti quoi ma daal si moom amuñu fayam da koy sant bu baax a baax bu moo ak Thierno Ndiaye waaw waaw bu ñëwee ñu ngi tàggatoo di gërëm ñëpp xam nga. balaa moo tàggatoo ñuy may ñu wax suñu monsieur le maire alma micro bi fii monsieur le maire Abdou Aziz Paye Gueule Tapée Fass Colobane da nga war a jàppale ndaw yi jàppale mbër yi jàppale jeunesse bi parce que ñun ñoo sonn quoi ñun ñooy sonn. bu tàmm mbër yooyu jàppale bu tàmm mbër jàpp fii. voilà bu xool mbër mi ngay jàpp ak mbër ñëpp a bokk ñun doomu Fass ñu dund de on a le sang Fass waa jëm sax jàppaleel booy nga jàppale jeunesse bi jàppale mbër yi bul xool mbër bi wala mbër bee ñëpp ñoo ci bokk yem. ñu boo ñu taxee ñu bëgg la boo ñu bëggul tamit dañ lay bàyyi rek sa jàppaleel mbër yi te yàlla tax waaw. loolu solo. tàggatoo waaw damay sant sama mafia waaye waa Yaraax aw ma seen fay ku ñu mel ne Pogo ku mel ne Pogo sama doomu ndey maa ngi koy sant bu baax a baax a baax Pogo borom Yaraax xam nga maa ngi koy bu baax a baax aw ma fayam wallaahi azim ku ñu mel ni Baye Fall Ibra dama koy bàyyi ak sunu borom sëñ Omar nag borom géej waay laamu ji sa laamu la maa ngi lay bu baax gis naa ni nga taxawee xam nga di santaat sama gaay yëpp yëpp yëpp ku ñu mel ni Coba bi kii moom mention spéciale. moom yàlla ma koy bàyyi suñu borom quoi ma koy bàyyi suñu borom ndax làmb ji wét na si trop daj na si lu ne saa yi may bëri lu ne lay daj du tëdd du nelaw xam nga ay Babacar Diatta Pafay ñëpp maa ngi sant ñëpp ñi ma jàppale sama grand Chris sama yaay Asou Faye Diagne sama maam Maolo sama waalo waalo maa ngi sant bu baax a baax a baax baax di leen gërëm xam nga ñoom ñëpp ay Bouba Zarko maa ni sant Thiaw ku ci mel ni Bouba ay ñëpp sama mafia bi boo limee rek da ngay juum xam nga Pape Mbaye sama doom maa ngi koy gërëm moom fi bi lax bi moom laa ko may xaw maa ngi gërëm bu baax a baax a baax di santaat ñëpp di santaat ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp paagay la dèjà maa sant maa fi ay ultra arafat bi ma seen fay waa gis naa duñ ma taxawoo bàyyi wër na Serigne Fallou Mbacke maa ngi sant bu baax a baax di leen gërëm yow waa Siteu seen Siteu la waa deuxième Ndiago aw ma seen fay ñoom ñëpp maa di sant billaahi wallaahi di sant waa taan bi yëpp gël tapé Fass Kolo maintenant bi baa ñu kenn billaahi kajoor kajoor yi xam nga waa Daaru Diop maa sant ñëpp di leen gërëm billaahi maa ngi sant ñëpp ñëpp di leen gërëm gis naa ñu ma taxaw ma jàppale wallaahi xam nga sama mbokku njaago yi sama mbokku jooraay maa ngi sant ñëpp bàyyiwuma si kenn maa ngi sant ñëpp billaahi ku lim juum di santaat président Daaru Seck maa bu baax a baax a baax gisaanu ma sant sama waa ko ñàkk am ma seen dëgg yàlla ñëpp maa ngi di sant sama grand Cheikh Tons xam nga Alioune Seye ñoom Tali ñoom Talla xam nga ñëpp association d'école suñu gox bi maa ngi sant ñoom xam nga sama grand Gundur ñoom ñëpp maa ngi sant di leen gërëm gis naa ni ma taxawoo xam nga ñëpp laa sant daal ku limber da ngay juum quoi ku dégg sa turam nga xam ne tam xel moo matul mais maa ngi sant ñëpp waaw di wax sama combat taxaw na quoi waaw ñu wax ñu ñaanal ma incha allah rabi le 10 juin. yaakaar taxaw na rek waaw. waaw incha allah. gis ngeen mbokk yi defe naa ne Siteu bu Anta lañ seet si woon gis nañ jot nañu waxtaan moom ci komba bi nga xam ne ci la jot a jógee waaye annoncé na nag nee na combat am taxaw na di leen dox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ci Kewel Info jaa ngeen jëf.